émission bi de. jërë jërëjëf euh, Fatou Baba Fall donc euh, ñoo ngi lay jaajëfal ci invitation bi di di di remercier euh, mboolem sa auditeurs yi ak auditrices yi donc ñi ngi xam ne ñoo ngi ñuy déglu professeur euh, dañuy tàmbalee waxtaan wi rek ci li nga xamante ne moom moo di métier bi di psychiatre ñu bëggoon xam euh, le mot psychiatre pour ñu ñuy déglu en terme un peu plus terre à terre lan la woon le professeur. waaw euh, psychiatre dafa nekk docteur docteur la boo xam ne ni dafa jàng def médecine. Mhm. def huit ans de médecine ba pare médecine générale am boo paree si médecine général am na ñaari voie benn voie mooy da ngay def euh, concours li ñuy wax concours internat des hôpitaux daal di doon interne des hôpitaux en psychiatrie mm-hmm. wala nga def sa bindu pour def euh, sa spécialité donc euh, bu nekkee internat bi juróomi parce que am année probatoire mooy bi biñ ne ne tàggat bu mm-hmm. njëkk bi après bu nekkee da nga jàll internat ci ginnaaw année probatoire boobu di nga def juróomi at bu nekkee spécialiste nag da def CS bi mooy spécialité bi dong ginnaaw année probatoire ñett ñetti at ngay def mu nekk ñeenti at donc pour nga mën a nekk euh, spécialiste en psychiatrie donc ci ginnaaw bi nga defee sa étude de médecine ba pare mm-hmm. Mm-hmm. Euh, euh, professeur wax nga ko euh, deux voies ngay def moo xam concours wala certainement nga dem fi nga xamante ne moom mooy université Cheikh Anta Diop bu est-ce que en dehors de ñaar yooyu am nañu possibilité def enseignement supérieur privé jagleel ko ci li nga xamante ne moom moo di psychiatrie Euh, waaw pour l'instant nag euh, wàllum psychiatrie ci boppam. Mhm. amul enseignement privé. donc kooku um, mu ne nga nekk interne wala nga bañ nga nekk interne des hôpitaux wala nga nekk euh, spécial CS nooy DS yëpp université Cheikh Anta Diop lañ lay former mhm. pour nga nekk psychiatre waaw. Mhm. Ah. Euh, Sénégal euh, dañoo xaw a baaxoo boo nee psychiatre rek xel dafay daal di dem ci li nga xamante ne ñoom seen xel wóorul amaana ma mun na bañ a yegg foofu sax ndax mun na nekk ci trouble de comportement anxiété wala nga nekk dépendance ñu bëgg a xam rek euh, ban fréquence ngeen di gën a farataal di jànkonteel ci lii ma lim ni waaw xam nga euh, c'est vrai li nga wax na euh, Sénégal lu gën a bëri boo ne psychiatre rek wala maladie psychiatrique rek dañ naan euh, maa ngi maa ngi jéggalu ci jox bi feebaru dof mm-hmm. te psychiatre sax dafa dafa ëmb lu weesu loolu parce que mm-hmm. boo gisee léegi sax lu gën a bëri dañ naan la santé mentale mm-hmm. bi wax sax maladie mentale donc parce que y a une différence entre la santé mentale la maladie mentale parce Euh, santé mentale dafa ëmb dafa ëmb maladie mentale nekk ci biiram mhm. donc euh, moo tax boo xoolee euh, dinaa def benn digression bu tuuti. mooy profession yenn profession yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum psychiatrie. Mhm. moo xool dafa am des psychiatres am ay infirmier psychiatrique am mhm. ay psychologue am mhm. ay travailleurs sociaux mhm. donc loolu mooy staff bi nga xam ne mooy euh, ëmb yaa ngi sànq bi nga ñëwee bi ci ñu nekkoon mu nekk ñoo xam ne pluridisciplinarité la donc euh, loolu dafay nekk psychologue yi nga xam ne ñoom seen formation de base seen formation littéraire maanaam faculté de de lañ leen di former après ñu ñëw def stage daal nekk ay psychologue clinicien di liggéey ci biir hôpital bi bokkuñu liggéey bi nga xam ne peut-être loolu dañ ci wàll ñëw ci kanam mooy ci wàll yenn façon traitement yi xam ne ñun ñoo koy def infirmier yi nga xam ne tamit dañ leen di former à l'école ENDSS ñu def seen euh, infirmier d'état ñooñu bu ñu génnee nag mën nañ def genre formation technicien supérieur pour nekk infirmier spécialisé en psychiatrie mm-hmm. donc euh, mu nekk nag ñun ñëpp ñuy seq malade bi nag bu feebaree ñu koy faj wante feebar bi moom dégg naa pour pourcentage bu tuuti la ci suñ liggéey parce que li gën a bëri suñ liggéey xam naa ne sax wàllum prévention lay doon mooy wàllum naka la ñuy def ba feebar bi bañ a egsi mooy képp nga xam ne ni lépp loo xam ne mën nañ gàttandu feebar balaa mu lay gàllankoor ba lay tël hôpital ñu def ko loolu nag euh, dafa nekk loo xam ne nii euh, mooy le plus gros de notre travail mooy li ëpp suñ liggéey ci loolu la moom mooy maanaam Euh, nañ ci ñëw ci wàllu liggéey euh, faj bi mooy mm-hmm. wàllu waxtaan wi mm-hmm. ak wàllu conseil hygiène de vie mm-hmm. pour mën a bañ a egsi parce que feebar moom fréquence bu tuuti la comme ni nga ko waxee am na am na façon feebar yu bëri mooy wàllu psychose wàllu névrose ak wàllu trouble de la personnalité wala les des addictions yoo xam ne yëpp si kaatu ñoo koy boole di ko faj mais encore une fois de plus loolu lu néew la ci population mondiale bi. Mhm. wala population Sénégal bi. Mhm. boo xoolee bu ñu waxee wàllu schizophrénie nga xam ne mooy feebar bi nga xam lay gën a jàkkaantool ni en tout cas ci hospitalisation. schizophrénie waaw mooy wàllu comme par exemple ñi nga xam ne nii dañoo dem ba tàggatoo ak seen sako. Mhm. waaw su boobaa ñooñu presque un pour cent la de la population donc moo leen lu tuuti la. waaw waaw lim bi néew la. waaw donc alors que. liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéey ci wàllu consultation mm-hmm. mooy wàllu ñi ngay recevoir sa consultation fekk amaguñu ay feebaru xel mais am nañ problème xam nga loolu sax li koy gën a màndargaal mooy wàllum souffrance ak douleur xam nga nit ki di nga am euh, ñu ne sa sama loxo day metti mm-hmm. sama bopp day metti mm-hmm. loolu dafa am mais sama xol dafa naqari bokkul ak sama lii day metti mhm. dégg nga seen saa yi ñu ne sama xol day metti ak sama xol dafa naqari bokkul xam nga donc kooku noonu naan sama xol dafa naqari dafa amee souffrance amewul douleur la amee mhm. donc kooku il faut ñu faj ko balaa souffrance boobu du jur feebaru xel mhm. donc loolu te presque moom mooy li gën a bëri suñu activité loolu la mooy ñi nga xam ne nii dañ leen di jël yaa ko doon wax sànq wàllu stress. Mm-hmm. xam nga wàllu stress wàllu stress du xëy xëy suba rek daaneel la. Mm. te la bu la daanelee tamit du xëy xëy suba rek nekk feebar. lu muy cumuler nag dafay cumuler di dem di dem lu yàgg ba nga xam ne nag yow sa sa mécanisme d'adaptation mooy ni nga amee euh, sa ni sa yaram mën a xeexee. stress bi. Mhm. day dem ba dépassé ko. Mhm. bu ko dépassé nag mu daal di indi maladie donc ñun suñu liggéey dafay nekk avant maladie bi aussi nga xam ne ni kooku mu nekkee en situation de stress dañ ko mën a jël mën a toog waxtaan ak moom indiwaat xelam ba xelam ñëwaat ba nga xam ne nii du mën a dellu ci ci maladie bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy prévenir. Mhm. kin am souffrance tamit noonu la. donc ko nga xam ne nii daa am maanaam ku ko jege. mu ku wàññeeku nga xam ne ni wàññeeku métti na métti ci moom boo xam ne mënu kaa dépassé kooku tamit yenn saa yi day jar ñu jël ko to waxtaan ak moom indiwaat ko. ba mu ñëwaat donc noonu loolu mooy suñu liggéey plus que ni ñuy wax naan maladie mentale maladie mentale moom du tuuti la suñu liggéey. on est plus des acteurs de la santé mentale. Mm-hmm. la santé mentale comme li ñuy wax c'est la bonne comme ni ko OMS di définir la santé moom xam nañ ko. Mm-hmm. c'est pas seulement l'absence de maladie. Mm-hmm. waaw dafa nekk un concept global. Mm-hmm. Euh, mu mel ni docteur foofu leer na mais ci sa biir wax euh, bi ma la dégloo dafa mel ni seen liggéey euh, c'est un travail qui se fait à la chaîne parce que wax nga infirmier wax nga médecin interne ñu bëggoon xam rek ku ci nekk ci ñoom sa sa domaine de prédilection fan la tàmbalee ak fan la yegg si fan la yegg autant pour moi balaa peut-être ngeen di jot les les dossiers des des patients. waaw d'habitude bu ñu jotee comprendre ni ñu mën a xaajale liggéey parce que ñu ñëpp bokk liggéey mante comme ni nga xam ne il faut ñu xaajale mm-hmm, mm-hmm. Euh, ci tënk dañ naan médecin bi moom dafay am benn activité moo xam ne mooy di bind garab parce que moom mooy jàng wàllu garab médecine donc médecin bi moom si psychiatre bi mooy médecin bi day bind garab wante euh, ci beneen wàllu paj bi parce que comme ni ñu ko waxee faj bi dafa ay faj ay pàcc yu bëri waaw pàcc bi nga xam ne ci wàllu waxtaan la mooy psychothérapie psychothérapie boobu psychologue mën na ko def psychiatre mën na ko def kon médecin bi bind garab mën na def tamit psychothérapie bu nekkee jàng na ko parce que loolu dafa nekk loo xam ne dañu koy jàng à donc moom mooy euh, euh, psychologue bi nga xam ne moom dem na faculté ñu jàngal ko ba mu am maîtrise am en psychologie. Mm-hmm. médecin bi dem jàng euh, docteur euh, étude de doctorat ba pare génn dem def psychiatrie cinq ans génn bu bëggee def psychothérapie day dem jàngaat technique bi day dem nag bokk ak bi jàng technique bi bu mhm. nekkee bëgg na ko bu mhm. nekkee bëgg ko nag mu yem ci bind garab donc donc ñoom ñaar ñuy mën a def psychothérapie psychothérapie nag euh, xam naa nañ ñëw tuuti parce que damay bañ mu raw ma mais ñu wax liggéeyu infirmier bi ci boobu parce que fii dafa nekk psychiatrie dafa nekk Euh, hospital surtout wàllu hospitalisation infirmier dafa am lu muy liggéey liggéey bu am solo. Mm-hmm. parce que boo xoolee nekkul rek exécuter ordonnance nekkul rek exécuter joxe garab jëlal garab bi piqué naa la déedéet dafa am leneen lu muy liggéey mooy ci wàllu waxtaan ci wàllu jegeyoo ak malade bi ci wàllu diggante ak malade bi di waxtaan ak moom di waxtaan ak famille di indi xelam mm-hmm. loolu tamit dañ leen koy jàngal en plus loolu moo tax ñu def formation technicien supérieur bi pour mu mën a nekk infirmier mm-hmm. euh, spécialisé en psychiatrie mm-hmm. mooy ce qu'on appelle fii ñu ngi koy tuddee diplôme d'initiation à la psychopathologie nga xam ne infirmier bi jàng école def formation infirmier ba génn ENDSS wala ci beneen école bu mënta doon bu ñëwee dañ koy jàngal naka la ñuy waxtaanee nit naka la ñuy yan mooy signes yi yan la war a xàmmee ci wan la war a sukkandiku pour mën a bokk ci équipe bi donc kon léegi xam nga kon wax nañ liggéeyu médecin bi wax nañ liggéeyu infirmier bi léegi nag ñu wax na léegi psychothérapie bi nga xam ne ñoom ñëpp mën nañ ko bokk parce que psychothérapie boobu infirmier mën na kaa jàng médecin mën na kaa jàng psychologue mën na kaa jàng. Mm-hmm. parce que ay technique la. Mm-hmm. léegi psychothérapie boobu nag moom mooy waxtaan moom mooy li gën a bëri ci suñu liggéey. Mm-hmm. nga xam ne su boobaa day ñëw di waxtaan ak malade bi. di indiwaat xelam di dalal xelam ak di ko dëfal ci nga xam ne ni moom lay tiit donc loolu moom mooy li nga xam ne. sunu sunu sunu wàllu liggéey boobu nga xam ne nii day dem sax ba yenn saa law ba passé malade bi sax dem dugg ci njabootam mooy ne ko li ñuy wax naan la la thérapie systémique mooy la thérapie familiale nga xam ne nii fu mu nekk nii Sénégal ràññeeku na ci jàngale bi koy jàngale fii thérapie familiale et systémique nga xam ne ñoo ngi koy jàngale fii ci hôpital Fann mm-hmm. donc ñuy am na sax association de thérapie systémique sénégalaise boo xam ne nii ñoo ngi def liggéey bu am solo donc euh, ci di jàngale parce que ngis nañ ne euh, feebar wàllu wàllu feebaru xel famille daam lu mu ci joué lu bëri ba nga xam ne nii bi professeur Collomb nga xam ne moom mooy installé école de Dakar la psychiatrie de l'école de Dakar donc bi mu ñëwee ne sax léegi fii bu ñuy jël nit ki bu ñu ko hospitalisé famille day ñëw ànd ak moom kenn ci bi ñëw ànd ak moom nekk ambassadeur u personnel de santé bi ci famille parce que dañ ne nit ki bu ñu ko fajee pare day dalaat ci famille donc loolu nag moom mooy indi léegi ak li ñuy def si le plan international mooy thérapie bi nga xam ne ni boo ko jàngee da mën a toog ak nit ki waxtaan ak moom waxtaan ak njabootam xool lan moom moo mën a indi feebar bi ci jóge ci njaboot bi tamit lan moo mën a faj feebar jóge ci bi mm-hmm. kooku mu nekk benn ci technique nga xam ne mën nañ ko jàng mm-hmm. am na tamit yeneen technique mm-hmm. mooy thérapie cognitivo comportementale boo xam da ngay xool nit ki muy comporté woo nga nga waxtaan ak moom fexe ba dindi symptôme bi wala thérapie analytique wala yeneen thérapie am na daal façon thérapie yu bëri mais yooyu yëpp da koy ëmb ci wàllu psychothérapie nga xam ne ni pour nga mën kaa def nag il faut nga jàng ko. Mm-hmm. mais jàng bi nag da am lu koy lal mooy base bi mooy da ngay nekk soit un psychiatre wala soit nga nekk un psychologue. Mm-hmm. wala nga nekk un infirmier spécialisé mm-hmm. en euh, psychiatrie mm-hmm. donc nga mën a def kon wàllu wàllu benn paj bi nga xam ne mooy pajum waxtaan bi mm-hmm. nga xam ne boobu nag moom mooy doon di gën a bëri waaw ci liggéey bi parce que loolu mooy permettre nga bañ a bàyyi nit ki ba mu ñëw ci feebar parce que état stade feebar moom nekkul loo xam dañ kaa bëgg parce que ñàkk pexe la buñ egsee ba mu nit ki summeeku euh, sànni ay yéreem euh, nekk ci mbedd bi di waxtu parce que euh, li wala lale mm-hmm. loolu nekkul li gën mm-hmm. li gën moom mooy bu ñu seetee gis nit ki ne moo ngi tox yàmbaa par exemple ci exemple mm-hmm. te tox yàmbaa bi mën na ko indi ci sànku donc war nañ kaa mën a yóbbu ci ña ko war a faj ñu faj ko balaa mi ak sànku ba bu ñu gisee ne nit ki am na ay problème sociaux mooy stress wala professionnel mooy stress au milieu en milieu de travail boo xam ne nii tëkku na am na doole su mhm. boobaa ba nga xam ne mënatu ko supporter war nañoo mën a yóbbu ko ñu def ak moom liggéey bi ñuy liggéey ba wala ba egg ci feebar mhm. bu ñu gisee ne nit ki am na ay difficultés sociale dans sa famille yoo xam ne nii war nañ ko mën a gàttandu balaa mu indi feebar ñu daal di koy gàttandu mhm. donc kon feebar bi nga xam ne dañ ko bëgg dañu sikaati euh, bi ñu bëgg a yemale ci feebaru xel kon gis nañ ne feebaru xel lu tuuti la waaw lu tuuti la ci ci liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi gën a tëkku bi gën a am solo mooy li ñuy def nit ki àgg ci feebaru xel. <laughs> Euh, justement par rapport à ça professeur wax nga ko ci sa biir wax euh, am na foo waxee thérapie familiale mais euh, li ma la bëgg a laaj rek mooy lan mooy ci la responsabilité sociétale euh, je m'explique da ngay am sa doom wala sa frère mu am benn comportement bi du la intriguer intriguer de prime abord da ngay jàpp ne peut-être ki dafa yarook sagom peut-être lii peut-être lii alors que am na benn douleur boo xamante ne mu ngi koy traîner di ko traîner donc responsabilité familiale bi foofu naka lañ ko mën a situé woo par rapport euh, si yenn cas de yi nga xamante ne ci ci ci kër yi lay génnee amoo seetlu amoo prise en charge ba euh, mu mu mu dégénéré comme ni nga ko waxee ba nga génn ci mbedd bi. waaw xam nga c'est que ñun loolu boo gisee fii même sax malade yi nga xam dañoo hospitalisé. dañ koy faral di waxtaan ak famille lu yàgg ci li ñuy wax penc bi ñuy def penc mooy pencum fan bi gars yi doon dégg nga xam ne ni euh, dañuy dajale malade yi. Mm-hmm. ak ñiy faj fajkat yi ñuy waxtaan mm-hmm. ak seen famille ak famille ak famille malade yi mm-hmm. parce que loolu dañoo gis ne malade yu gën a bëri duñ leen indi hôpital bu dul bu ñu commencé am ay màndarga feebar bi jaaxal njaboot bi maanaam nit ki dina toog du nelaw duñ ko indi hôpital nit ki dina toog ne xolam neexul kenn du ko indi hôpital nit ki dina toog ne bëggul lekk kenn du ko indi hôpital nit ki dina toog di jooy sax kenn du ko faale dañ naan dafa réew dafa yaroog sagom alors que feebar la wante bés bu nee ba sumeeku mu jaaxal nag ñu yenu indi hôpital fekk ne boobu feebar law moo ngi law dëkk bu yàgg wala ba bu demee ba dóor wala ba gaañ kenn ñu indi hôpital fekk ne boobu feebar am na lu mu doon law lu yàgg parce que loolu tamit dafa nekk loo xam ne nii am na ay signes donc euh, dafay nekk loo xam ne nii la plupart du temps nit ñi du ñu indi hôpital ki feebar budul buñ gisee li leen jaaxal alors que am na loo xam ne nii jiitu na lu jaaxal loolu nga xam ne bu ko indi woon feer bi dina gën a mën a yomb. Mm-hmm. waaw mm-hmm. donc du mën a ñàkk du mën a ñàkk kii la sax euh, ñàkk. Euh, seetlu wala ñàkk taxawaay. mais dafa nekk ne peut être yenn say xamuñu. parce que loolu tamit mooy ma ci rafetlu seen liggéey bi ngeen def mooy liggéey bi mooy permettre di di mën a xam. Mm-hmm. parce que nit ki saa su gisee mu changé comportement mel noo xam ne melu ko woon. bul xaar ba mu jaaxal la. waaw mm-hmm. maanaam noonu lay wax chaque fois ci wàllum euh, xale yi utiliser wàllum euh, drogue sinebar euh, mm-hmm. damay wax chaque fois boo gisee sa doom mu nekkoon koo xam ne da doon jàng école di am résultat yu baax jékki-jékki not li mu not bu chuté war ngaa toog ne sama doom bi lan moo tax notam chuté mm-hmm. est-ce que amul lu muy def école wala est-ce que daal di jege maître bi laaj ko comportement am xool ndax changé wul comportement ñu xool xam exactement lan la mm-hmm. boo demee ki nga xam ne nii dafa bokk bëggoon liggéeyam jékki-jékki nga gis ko muy nelaw ba onze heures midi demul liggéey mm-hmm. boo ko war ngaa jege xool xam lan la boo gisee koo xam dafa ubbeeku woon jékki-jékki tëju mm-hmm. war ngaa xool donc xam nga yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne ni peut-être nit ñi duñ ci bàyyi suñu xel dañ naan ah daa sonn daa am problème daa ki fekk ne effectivement feebar bay moo ngi law ci suuf. Mm-hmm. waaw kon nit ñi peut-être que éducation population bi ak mm-hmm. information muy information éducation communication. Mm-hmm. war nañ kaa yokku ci wàllu feebaru xel. pour nit ñi gën a xam loolu xam nga damay am sax comme ni nga ko waxee sax benn mandarga boo xam benn histoire boo xam ne nii daf musa dal daa musa dem ci benn village boo xam ne sama benn xarit moo fa dëkkoon. ma ñëw fekk fa benn ndaw soo xam ne nii dañ ne depuis bu mu accouché dafa accouché rek bu mu accouché pare daal dafa soppeeku mante soppeeku bu mu soppeeku jaaxalul woon kenn dafa gën a tëju. dafa tëju dafa tëju daal xam nga mm-hmm. ñu naan noo rab la jinne la nii nii nii xam nga. Mm-hmm. alors que bi ma ko xoolee ñëw ma ne waa ji ma ne ko seen kii de il faut ngeen indi ko hôpital. Mm-hmm. déedéet euh, deful dara moom mu ci kër gi toog dafa accouché rek mu fe accouché pare daal dañ toog quelque temps rek mu tëju. mais bi mu indi hôpital. li mu doon def ñun xam nañ suñu jargon mooy liñ na liñ appelé euh, boobu noonu ci temps yi psychospirituel moom mooy liñ naan meret entre guillemets dafa am ay façon yu yoo xam ñoo yoo xam ne ne mën na ci façon boobu mais bañ ko bañ ko traité dafa dellaat mel na meloon alors que mënoon nañ ko bàyyi noonu au bout de cinq ans dix ans mu daal di yàqu mm-hmm. xam nga donc loolu mu nekk loo xam ne du du càggat ne nit ñi dañoo da dañ dañ koy soofantal mais dañ ko xamul mm-hmm. donc war nañoo yokk Euh, gën a communiquer ci wàllu feebaru xel parce que même yenn saa yi sax nga gis ne ñi nga xam ne nii mooy ñun li ñu nepp li ñu tuddee suñu jargon mooy malade errant mooy malade yi nga xam ne dañuy dem ba seen famille euh, génn seen kër nekk ci nekk ci mbedd bi di di di di di taxawaalu mm-hmm. am na ci ñu bëri ñoo xam ne buñ ci defoon euh, effort bu tuuti mënees na leen récupérer mm-hmm. mais toujours avec euh, l'accompagnement de la famille. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, mu mel ni côté boobu pesanteurs sociaux yi dafay xaw a ñëw euh, parce que euh, peut-être yow da nga nekk ci millier bi femme bi ngay wax damay rebondir si ça da nga nekk ci milieu bi nga am seetlu ak peut-être capacité te mu nekk yi tamit sa sa métier moo tax nga détecter très tôt que ne kii le fait que mu isolé wu du accouchement bi mais dafa am lu lu weesu accouchement bi mu mel ni aussi yenn saa yi sociaux yi dafay dafay dafay. dafay dafay gën a dëgër euh, parce que dañu doon préférer certainement yóbbu ko ci ci ci ci je n'ai rien contre les tradipraticiens dañuy waxtaan rek préférer woon nañu certainement yóbbu ko foofu euh, peut-être alors que ça va au-delà euh, effectivement garabu tubaab moo ko waxoon faj ndax loolu aussi tamit des fois du nécessité vraiment ñu ci communiquer ci yenn aspect yi laata que peut-être muy muy dégénérer certainement tu es venu au bon moment bu yéexoon mënoon na gën a maara day taale. waaw xam nga loolu encore une fois de plus euh, nit ki ci li mu xam ne ci loolu lay demee. Mhm. parce que boo demee ci ci village ba. Mhm. nga xam ne nii moom peut-être que sëriñ bi moo ko gën a jege. dana mën a gën a neex mu dem sëriñ bi. wante tamit ñu ne africain lañ. Mhm. donc am na loo moderne moderne moderne am na ñuy suñuy réalité yoo xam ne nii bu la dara dalee feebar. da nga dem uti explication bi. Mhm. waaw xam nga loolu dañuy ñëw toujours ci sama mbokku docteurs yi man ci laay. ñoom laay mettre l'accent parce que nit ki ak feer bu mu mënta amee bu ñëwee war nga mën a jël temps toog naam sax liggéey bi bëri na liggéey bi metti na wante war nga mën a jël temps toog expliquer ko feebar bi mu am ak naka la ko dikkee peut-être yenn saa yi nag du du du du facile. waaw du yomb parce que bëgg a expliquer nit ki lan mooy microbe. bëgg expliquer lan mooy euh, virus bëgg yëpp mën na mën na mën na entravé acceptation wu feebar bi mhm. xam nit ki pour mu faj il faut mu nangu ko il faut mu nangu ne dafa feebar mhm. léegi yenn saa yi ñun ñun suñ ñun waa kër docteur mhm. explication yi jox nit ñi moo leen dul doy léegi nit ki même boo ko ñëwee boo ko ñëwee benn ko ordonnance bu fajoo yenn saa yi feebar bu bu bu bu bu mandat de commencé dem rek danaan léegi xaaral ma dem ca kama xam ne daf may wax li nga xam ne dégg naa ko mooy ki nga xam de naan la sa sa wujju la liggéey ki nga xam ne naan la dañ da dangaa dox dangaa jégg liggéey liggéeyu jàmbur dangaa dox diggu njolloor mu nekk de choses culturelles loo xam ne waruñu ko fàtte c'est ancré en nous moo xam ne loo loo tubaabe tubaabe tubaab yenn saa yi da nga cay dellu boo jaaxlee boo jaaxlee da ngay dellu ci loolu parce que yaa ngi bëgg ut explication yaa ngi bëgg ut solution donc nag malheureusement Euh, comme li ngay wax. Mm-hmm. la médecine traditionnelle dans ce pays-là est très mal encadrée ku jóg ne day faj. ñu mënuñoo bañ médecine traditionnelle. Mm-hmm. parce que ñun ay africain lañ. parce que fii lañ màggee fii lañ yaroo euh, ku nekk sa boo demul ci sëriñ tamit sa yaay wala sa waajuru góor wala sa waajuru jigéen mës na laa yóbbu ci sëriñ donc mënuñoo taxaw ne sëriñ amul. wante namit du sëriñ ku jóg rek ne man seen laa mën naa faj li mën naa faj lal da ngay dégg léegi ci rajo yi publicité façon publicité publicité bu nekk mm-hmm. te mënta mënta def ne mënta nekk sa mbok pëli baal ma toolu pël foo xam ne fu la fu neex fu neex waay jaar mm-hmm. dafa nekk loo xam ne dañ ko organiser mm-hmm. ba nga xam ne même bu nekkee dafay am parce que dans la médecine loolu dafa mës a am herboriste dafa mës a am même en Europe avant nga xam ne nii ñooñu ay ay ay garab ak ay reen la ñuy fajee. Mm-hmm. mais dañ koy xam jàng ko. Mm-hmm. doo xëy suba rek ne man herboriste la mm-hmm. am na ñoo xam ne ci ay ñaan la ñuy fajee mooy prière euh, prière ak ay. Euh, forme yenn forme de yoga ak ñooñu. nga xam ne ni loolu tamit gëm nañ ko am na wante tamit du ko ñëw rek ne ma man la donc loolu mën nañ ko organiser gën ko organiser ba nga xam ne ni nit ki di nga fi nga bëgg dem da nga fa dem faju parce que man je me ko que aujourd'hui bu nekkee médecine chinoise nga xam ne médecine traditionnelle chinoise la ñuy wax mën nañ ko accepter kon ñun mën nañu accepter suñu médecine traditionnelle bi mais nag il faut ñu structurer ko parce que nag mm-hmm. nekkul xam ne ni ku xëy suba taxaw feebar bu ne nga ne bëgg kaa faj mm-hmm. loolu nag il faut il faut ñu xoolaat loolu loolu mënta nekk ba pare nag li ci gën a bon mooy ñuy lor ñi dem ci ñoom di leen dépensé loo xaalis bu dul jeex ba pare di leen indil ay gaañ yoo xam ne lu ci gën a bëri ñun boo gis gisee ma ci wax nii parce que da ngay da ngay da yenn saa yi dangay gis benn malade boo xam ne nii day ñëw jóge fu sori nga faj ko faj daj ci coono boo xam ne nii hospitalisé pendant deux mois trois mois mm-hmm. ba mu tane xam nga nga xam ne bu muy ñëw sax waa waa këram amuñu amu ci woon benn espoir. Mm-hmm. nga faj ko mu tane bu tane ak garab yi nga xam ne yow moom nga koy jox. mais euh, ñu génn bu génnee ñu dem yóbbu ko ci benn sëriñ la première chose bu nga koy wax ne ko arrêtal garab tubaab bi parce que samay garab ak garabu tubaab bu ànd donc waa ji bàyyi garab bi buy ñëwaat ci ñun ci état bu ma nekkoon ci commencement bi lay ñëwaat te loolu c'est désolant mm-hmm. xam nga yenn saa nag et ça je le salue parce que yenn saa dañ ci gis yenn nit ñoo xam ne nii yenn euh, euh, tradithérapeute mooy ñi nga xam ne nii ñooy wàllu faj wàllu cosaan mm-hmm. dañ ci gis ñoo xam ne nii ñoom sax ñoo ñuy envoyé. ay patients ay patients dem leen euh, hôpital sangam. Mhm. parce que boo leen fa demee ñu jox leen garab parce que comme ni ko euh, sëñ sëñ Fallou doon waxee. Mhm. ah garabu tubaab de euh, seddal na yaram te du la du la du la boole mhm. <laughs> mu mel ni loolu ah, anecdote la certainement yow yaa def digression mais loolu a qui la faute cette floraison de de de tradipraticiens. waaw xam nga euh, euh, exercice de la médecine il faut toujours mu nekk loo xam ne dañ koy encadrer. Mm-hmm. ak médecine bu mu mënta doon. xam nga temps yi boo gisee temps yi ci temps ci ginnaaw bu génnee gis nañ fa ay faux docteur xam nga lépp la cest à man da ma jël di sànni ci toolu keneen. <laughs> parce que bu nekkee encadre wuñ ko nga xam ne ni yow boo bëggee def médecine terewuñ kenn mu def faj faj moom comme li ñuy wax dafa am faj fajum docteur. moderne am faju aada am faju cosaan ak yeneen faj yoo xam ne sax xamuñu ko. Mm-hmm. ay ñaarak ak yëpp am na diine lépp ku ne ku neex mën ngaa faj. Mm-hmm. wante nag il faut ñu structurer ko ba nga xam ne yow boo bëggee faj am na yoon booy jaar ba nga xam ne nii nga lii boo jaaree ci yoon bi jaar ci yoon bi jaar ci yoon bi di am droit faj. Mm-hmm. mais du ku nekk rek xëy suba uh, ubbi sa kër toog samp sëy butéel ak say béjjén nit ñi ñëw di la jox xaalis ngay def di n'importe quoi. donc loolu je pense que. première responsabilité mooy ñiy faj faju cosaan am nañ ci responsabilité parce que tamit ñoom ñu war nañ xamante seen biir man sama mbokk docteur yi xam ne jàngoon naa ak ñoom naa ak ñoom xam naa leen mm-hmm. ku ñëw ne ma diw ma ne la ah diw kat xaw ma ko du xam nga même bu nekkee xaw ma ñëpp mm-hmm. donc ñoom am nañ ci déjà responsabilité parce que ñoom bu ñu gisee koo xam ne li muy def dëggul dañ ko war a dénoncer mm-hmm. état bi am na pas de responsabilité parce que tamit état bi moo war a encadrer la la la pratique de la médecine que ce soit la médecine moderne wala mu nekk médecine traditionnelle. Mhm. mais population bi tam am nañ ci wàll responsabilité parce que ñun ñooy dem ci ñoom. les waaw donc ñooñ tey du ma ne ma sàmbala wala ma dembala même ñun wàllu fajum tubaab am nañ ci responsabilité. Mhm. parce que ni may wax yenn saay yi xoolee diggante ordonnance. Mhm. transport euh, fay consultation. defee ay bilan. mais rapidement boo ñëwee hôpital ñu fayee ko le deux cent mille wala trois cent mille. Mhm. dañoo fi fay am salaire bu toll noonu. Mhm. donc war donc c'est tout le système. tout à fait qu'il faut revoir pour permettre nit ki mën a faju ci anam yi gën a leer mais encore une fois de plus man je dis que la ñi ñi njëkk a incriminer mooy population bi. Mhm. parce que population ñu ñee tànn dem fi leen neex ñu ñee tànn dem fi ñu kii nee na l'État peut mettre en place un dispositif ba pare nag ñun nag ñi ñiy faj. ñu fexe ba kenn kuñu gis ku ñu rax te bokkul ci faj bi ñu daan lay dénoncé. Mm-hmm. parce que man tey jii su ma gisoon ku tijji clinique di fa faj te amoo amoo diplôme dama lay dénoncé. voilà. Mm-hmm. Euh, mu nekk exercice xam naa euh, illégal donc ñu xuus rek ci ci ci ci waxtaan wi tey jii rek euh, ñu bëggoon xam rek ban pourcentage nga ñu mën a wax bu fekkente ne am nga ci benn notion rek ci ñi nga xamante ne ñoom la santé mentale di gën a di gën a affecté soxna yi la ndaw yi la wala ñu ñuy duppee les grandes personnes. waaw question boobu dama ci sawar a tontu parce que tey jii am na jéego yu mag yoo xam ne suñ système de santé moo koy def ci wàllu chiffre recueillir ay chiffre waaw naam sax médecine mu du ay chiffre donc wante chiffre da cee bokk mm-hmm. wante ñu xool ne depuis deux ans trois ans ñun remarqué nañ que ne li ñu war a cër ba ñu war a jox santé mentale ci pour am chiffre yooyu joxuñu ko parce que chiffre yooyu tamit dafa nekk loo xam ne ni daam lu muy laaj mm-hmm. il faut un système informatisé am nañ système informatisé boo xam ne moo ngi ministère la santé. ñoo ngi koy dawal. ñoo ngi jéem a wàccee di lawal ci ji ko goxaat yi ba mu wër ba nga xam ne ni chaque structure di nga envoyé sey rapport de façon euh, hebdomadaire. Mm-hmm. ak euh, euh, semaine wala weer nga envoyé au niveau central mooy ministère ñu collecté ko daal lay jox ay chiffres mais ci wàllu santé mentale. ba tey on a des difficultés pour avoir ces chiffres là. Mhm. waaw mu nekk nag loo xam ne nii ñoo ci ciy lu mais ba tey motagul des na. Mhm. des na lu bëri parce que comme ni nga koy waxee boo xoolee sax région yi amaguñu structure de santé mentale ce qui n'est pas normal tey jii mënuñu comprendre aujourd'hui tey en deux mille vingt et un ñu toog ñu gis benn malade boo xam ne nii dafay am feebar bu feebaru santé mentale jóge maanaam Saint-Louis war a ñëw ba dakaar pour def visitam c'est pas normal. Mm-hmm. tey jii région waxuma bu nekk waxuma sax département wante région bu nekk war nga am structure de santé mentale boo xam ne nii ku soxla feebaru xel ñu faj la fa. mais boo xoolee tey ginnaaw Dakar Thiès Louga Saint-Louis Tamba Ziguinchor. Euh, Kaolack am na Kaolack am na benn centre mais centre bi c'est pas très fonctionnel. Mbour am na benn centre mais c'est pas très fonctionnel. Mhm. donc tey nga xool ne par exemple tey jii ku nekk Kédougou feebar am feebaru xel boo bëgg ñu faj la Tamba nga jëm. Mhm. Kédougou Tamba sori na. Mhm. te Tamba benn psychiatre moo fa nekk. moom mooy gérer Tamba Kédougou euh, euh, ba guddi ak su Kolda ak ñoom seen. beneen psychiatre ba gën a jege Ziguinchor la nekk. ñu à part ñooñu Kaolack donc aujourd'hui ñu gis ne tey jii santé pour man damaa jàpp gëdd bi mu war a am ci système de santé bi joxuñu ko. Mm-hmm. parce que tey jii foo dem waxuma la du ma ne kër de wante région euh, koñ boo dem am na ay nit ñu am feebaru santé mentale tey jii am fexe nañ tey ba nga xam ne nii. hôpital euh, euh, foo dem ci Sénégal foo taxaw am nga dispensaire wala hôpital boo xam ne mën nga fa fajoo. Mm-hmm. parce que le système de santé moo ngi fi moo ko laaj mhm. mais tey jii waruñoo na nañoo dépassé tey Sénégal foo xam dañuy toll foo xam ne nii nit ki bu dëkkee tey jii maanaam euh, Kédougou am feebaru xel il faut mu dem ba Tamba faju mhm. war nañ dépassé foo xam ne nit ki bu dëkkee maatam jàppal ne diggante maatam boo amee feebaru xel Sicap bi la gën a jege moo ngi Louga mante mhm. ne cest dañu war a dépassé stade bi ba nga xam ne ni tey jii chaque région war na am au lu mu dee dee dee dee dee dee néew si nu mu gën a néew néew benn psychiatre boo xam ne war na nekk foofu nga xam ne ni au moins ku am feebar mu mën la bi parce que yenn saa yi lan la ñuy xool dañuy gis ne en terme de dépense nit ki bu jógee Matam war a dem ba ba ba Louga yenn saa yi sax du jógee dem Louga Dakar lay ñëw. Mm-hmm. paas bi rek ëpp na ordonnance bi. Mm-hmm. te du ñëw moom dong parce que am ku mu àndal. donc boo xoolee ñu ñaar li ñuy paas boo ñëwee ñi bindal ordonnance boo xam ne mille francs wala deux mille francs lay jar lojugul mm. donc loolu dafa nekk benn activité boo xam ne nii euh, war nañ cee góorgóorlu ba nga xam ne nii maanaam région bu nekk dina am lu mu bon bon bon bon benn cigare. Mm. Euh, ndax ñàkk centralisation boobu sax du du du accentuer malade bi je m'explique parce que comme ni nga ko waxee peut-être jóge Matam wala dem Tamba boo xalaatee trajet bi ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ñoo xamante ne dañu am peut-être euh, euh, kii santé mentale bëgguma wax feebaru xel est-ce que ñoom sax à un certain moment duñu préférer croiser les bras peut-être toog ñu ne ah kii nañ ko fi bàyyi yàlla baax na. waaw mais loolu lay jur mooy li ma la waxoon c'est-à-dire que bu accessibilité bu nekkee accès dafa poser problème parce que tey boo xoolee nit ki bu nekkee yow bu ma Kédougou mais tamit dama jël exemple ci Kédougou waaw boo nekk ku jógee Kédougou am koo xam ne dafa am feebaru xel mm-hmm. nga xool paas bi diggante Kédougou ba Dakar au moins dina jël ñetti fan ñeenti fan ak mm-hmm. paas bi xaalis bi ak lépp alors que ci bopp koñ bi am nga benn sëriñ boo xam ne nii moo foofu effectivement mais da ngay dem ci sëriñ bi fay ko je sais pas weexal ko benn loo koy weexal mu jox la ay sungu ak ay reen ak affaire yooyu nga utiliser ko parce que moo gën a jege. moo ba pare moo nekk ci sa disposition. moom nga moom nga mën a gis. Mm-hmm. mais bu nekkee ne yow da ngay xalaat ne boo jógee Kédougou di nga ñëw Dakar voyager pendant une journée. Mm-hmm. fanaan Dakar. xamoo fan ngay fanaan Dakar dëkkuwaay yi xat na meratuñ ko bu yàgg ba nga fanaan Dakar boo xëyee maanaam boo jógee Kër Massar bu nekkee ki nga xam Kër Massar la dëkk da nga fayaat encore ñaata pour ñëw euh, euh, hôpital bu euh, bu Fann mm-hmm. boo ñëwee hôpital bu Fann rang rang bi faw nga teel a ñëw parce que ñëpp fa li ñëw mm-hmm. xam nga boo boo na ngay yendu da nga yendu deuxième jour beneen troisième jour nga voyage loolu sax rek mën naa yokk feebaru nit ki parce que dafa nekk koo xam ne nii xelam dafa am feebaru xel mm-hmm. donc yooyu yëpp mu nekk yoo xam ne nii il faut ñu toog ci wax ci. Mm-hmm. waaw mooy li may wax cest à am na yoo xam ne tey jii dañu war a mën a toog nag ne nag léegi euh, santé mentale. Euh, question de waaw question de priorité la. Mm-hmm. nekkul rek ay nit ñoo xam ne dañoo dañoo dañoo feebar nekk ci mbedd bi di taxawaalu déedéet dafa nekk na tey jii dañ ci war a investir parce que dafa am yow dafa nécessité de prévention parce que bu ñu xasee ba àgg ci bi de indi beneen affaire. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, justement professeur euh, professeur Sy professeur. <laughs> professeur Sy conséquence su santé mentale ci ci ci xale bi lan nga ñu ci mën a wax peut-être damay commencer ci tout tonk bi laata may ñëw ci mag bi wala ci soxna waaw xam nga euh, boo xoolee li ñu naan pédopsychiatrie Euh, santé mentale euh, euh, feebaru xel ci xale mm-hmm. wala sax environnement ni mu mën a impacter ci xale bi mm-hmm. ba indil ko feebaru xel mm-hmm. xam nga xale bu bu amee feebaru xel benn perte la pour un pays parce que dafa nekk koo xam ne nii moo war a màgg wuutu jël relève mais mënatu ko parce que moom bu xasee ba nekk am na am na feebaru xel dafay nekk une charge supplémentaire pour sa famille yenn saa yi gis koo xam ne nii mag day dem ba jëm mag gàddu doomam boo xam ne am feebaru xel du ko indi hôpital mu nekk lu yërëmtalu nga laaj ko mu ne la man de kii bi mu judd bi mu juddoo ba tey ci laa mm-hmm. te yooyu dafay nekk yoo xam ne nii peut-être que système bi mënoon na ko accompagner parce que am amuñu dispositif d'accompagnement mm-hmm. pour pour pour système bi amul mm-hmm. ba pare boole ci xale bi bu xasee ba am feebaru xel bu nekkee récupéré woo ko utal ko liggéey boo xam ne adapté parce que dafa nekk benn affaire donc il faut nga taayal ko defal ko chemise taillée sur mesure maanaam il faut nga jël ko dugg ci benn système boo xam ne ni jàng jàng spécial lay doon suivi suivi spécial lay doon utal ko liggéey mu nekk liggéey spécial boo xam ne ni du doon pertement ci société bi dina mun a au moins indi ñu jël en charge boppam. mais bu nekkul loolu dafay nekk charge ci waajuram. ba waajur bi génne àdduna ñu xool ci famille bi kan moom koy mën a jël en charge boo kenn mënta jël en charge day daal di nekk xam ne nii li mu waroon def ci seen du ko def alors que aujourd'hui boo demee tey jii boo demee ci euh, dëkk européen yi. léegi am na ñoo xam ne sax dañoo am feebaru xel dëpp bi ñu nekk xale juddoog moom juddoo feeru xale mais danañ fexe ba utal leen ay liggéey yoo xam ne dina permettre ñu am une productivité ba nga xam ne ñoom du ñu doon charge ci kenn. ba ñu permettre donc loolu mooy ci xale ci wàllu xale donc freina freiné bi nga xam ne nii feebaru xel dina ko freiné boo ko teelee am ci sa xale mu ne la ba nga xam ne ne yow peut-être que li nga war sa rôle nga waroon jouer ci société bi doo ko jouer. Mm-hmm. te ba pare comme li ma wax feebaru xel yooyu nekkul xale yi am feebaru xel yëpp ñoo yàqu. am na ñoo xam ne nii mën nañu def loo xam ne lu ëpp sax li nga xam ne ñun mën nañ ko def parce que yenn saa yi comme ni mu wax day benn xale boo xam ne nii dafa am benn feebar mais feebar bi mooy genre ay autisme ak ñoomin seen boo xoolee am na benn domaine boo xam ne ci la ñuy exceller waaw aptitude yooyu boo ko développé mën na indi leneen ci xale mën na ko jural ay qualité yoo xam ne peut-être que nit normal ko am mm-hmm. xam nga bu nekkee koo xam ne ni dafa am retard mental kooku boo ko am na loo xam ne mën na ko kii parce que yenn saa yi retard bi intellectuel lay doon mais manuellement mën na am ay aptitude mm-hmm. ba leen koy sànni di ko teg noonu mu nekk charge pour la société mën nga ko dugal ci benn système boo xam ne dina ko permettre mu jàngal ko euh, métier manuel boo xam ne au moins après nañ ko mën a permettre mu am benn liggéey boo xam dina dootul doon charge ci ci société parce que mm-hmm. loolu la wax dina mën a épanouir mm-hmm. justement par rapport ak charge boobu am na ñoo xamante ne sax dañuy yor ay xale yoo xamante ne dañu nekk ay malade mental mais dañ koy nëbb euh, mën nga nekk ci kër gi ay ati ati ati at mais doo xam ne fii am na xale boo xamante ne peut-être amul yenn aptitude yi mais loolu aussi euh, en tant que professeur naka nga ñu ko ban jàngat nga ñu ci ci ci ci mën a defar. xam nga loolu culturellement mooy euh, ñun cest dafa nekk maladie mentale dafa nekk lu ruslu. honte waaw dafa noonu c'est-à-dire boo amee sa doom nga jur sa doom ak lañ ca doon yaakaar yëpp mu jur di indi benn façon. xam mm-hmm. nga daal di jël ko ne ah may gis sax yenn saa yi peut-être que man daanaa gis ñoo xam ne dañ leen daan takk comme ni ñuy takk ay mala. xam nga ci biir kër gi dañuy nekk ci kër gi ñu samp bant takk leen ak buum. Mhm. ñu nekk ci kër gi noonu la ñuy màggee man gis naa ko bi may gën a nekk xale donc euh, ba ba ni ma nekkee mag sax am na yenn saa yi nga dem ci yenn kër yoo xam ne dañ lay woon ne fii la ñuy takk diw mu nekk loo xam ne nii peut-être amuñu solution. xam nga man je me dis que ne nit ki mënoo ko bañ ba pare mënoo ko jur pare bañ ko peut être du bañ mais da nga dem xam ni yow xalaatoo ci kii mën nga ci am leneen lu loolu mm-hmm. moo tax nga takk ko mm-hmm. wala nga tabax ko tabax ci benn ngunu ci ginnaaw kër gi di ko fa di ko fa denc mm-hmm. pour man du bañ mais ñàkk ñàkk pexe la donc loolu en plus donc encore une fois on revient sur day ñëwaat ci wàllu communication que koo xam ne kii am na mën nañ ko faj mais aussi ñëw ci wàllu disposition disposition yi nga xam ne état bi ak société bi ak collectivité locale yi dañ koy teg pour mën a jàppale ñooñu. Mm-hmm. parce que li ma la wax mënta nekk loo xam ne nii dañ koy bàyyi kenn dong duñ ko bàyyi état duñ ko bàyyi dañ koy bàyyi nga xam ne ni état collectivité locale famille yi ñëpp manko dugg ci pour xam ne kooku dañ ko war a récupérer. Mm-hmm. c'est quelqu'un qu'il faut récupérer dans la société un malade mental ku mënta doon aujourd'hui boo demee tey jii aux États-Unis on parle de la réhabilitation. Mm-hmm. waaw comment waru waruñoo nit ki am na feebaru xel rek ñu daal di koy bot di sànni ko génne ko ci génne ko ci société bi mm-hmm. wala war wala wala war war ko def koo xam ne ni dañ koy dimbali ilaa yow mi diin mm-hmm. déedéet mm-hmm. dafa nekk koo xam ne dañ ko war a réinsérer réhabiliter ko ci société pour mu delluwaat nekk koo xam dafay am njëriñ ci société bi euh, professeur Abou Sy bu weesoo tuut tonk yi ban ban ban ban ban fréquence ngeen di gën a recevoir euh, fii ci hôpital bu Fann waaw frais xam nga euh, chiffres yi nag dañ ci def nànk parce que boo xoolee euh, comme li ma wax ci njëlbeen nekkul ñi am feebaru xel ñëpp la ñuy indi hôpital. Mm-hmm. te nekkul tamit euh, te nekkul amuñu une couverture nationale. Mm-hmm. donc chiffres yi ñu am chiffres yoo xam ne dafay nekk chiffres yoo xam ne chiffres yoo xam ne du refléter la réalité waaw mm-hmm. mais en tout cas ñun am na ay yoo xam ne def nañ ko fii. yoo xam ne gis nañ que ne am na euh, lim boo xam ne nii ay lim yu xaw a takku parce que maanaam dee gis na bu nekkee à côté hospitalisation presque activité bi dina dem ba lu tolloog deux mille cinq cent wala trois mille hospitalisation par six mois. Mhm. donc mu nekk loo xam ne quand même takku na. Mhm. donc boo demee tamit ci beneen structure hospitalière nañ jox ay chiffres yo xam ne presque chiffres ñoom méngoo ñoom ñoo ñoo xaw a méngoo noonu. Mhm. donc loolu tamit am na tamit ñi nga xam ne ñëw en consultation externe. waaw ah, ñu leen xool foofu tamit donc mais fu mu nekk nii daal mun mënuñu laa jox. chiffre boo xam ne nii exact boo xam ne au niveau national mën nañ nag am ay chiffre am nañ chiffre de différentes yoo xam ne nii mën nañ wax bi lii la structure bi lii la structure bi lii la mais ba tey ba tey la chiffre yooyu fiable nu mu war fiable euh, ci hospitalisation bi ñan lay gën a concerner jigéen ñi wala wala wala góor parce que suñu jigéen ñi euh, des certainement ak bi lu ñuy cumuler si ménage bi bon duma aventurer ou certainement terrain boobu yaa ma ko gën a juste pour avoir plus de de précision ci ñan la gën a concerner ci frange de cette population waaw peut-être nag xam naa ne euh, fii moom par exemple chiffre yi ñu yor nag euh, parce que hospitalisation la en plus d'accord donc euh, la plupart temps daal góor ñoo xaw ëpp mais boo demee consultation day gis ne jigéen ñoo xaw <laughs> waaw contradiction boobu la koy indi euh, professeur. ah, ah déedéet loolu xam naa moom <laughs> damay bàyyi sociologue yi ñu ñu xalaat ci. <laughs> da nga jàpp ne sociologue yi ñoo ci war a indi indi leera d'accord on pense comme comme ni nga ko waxee mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag ñu am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di professeur Abou Sy professeur Abou Sy nekk psychiatre. Euh, fii ci hôpital bu Fann professeur euh, dañuy xuus rek euh, ci ci ci ci waxtaan wi woon tey jii naka la ñu war a def hormis méthode préventive yi ak approche communication bi depuis sànq yaa ngi mettre l'accent sur la communication mu nekk certainement loo xamante ne benn base fondamentale pour venir en aide ñi nga xamante ne ñoom ñooy souffrir ci yenn jàngoro yi mais bu weesoo loolu naka la ñu war a def ba améliorer lu ñuy duppee la santé mentale waaw euh, kooku moom day doon question bu très très intéressant mm-hmm. parce que dama naan euh, tey jii ci day am ñaari ko ŋànk mm-hmm. bu njëkk bi moom mooy décentralisation beneen moom mooy approche communautaire mm-hmm. pas approche communautaire bi nga xam ne ni nit ñi dañuy taxaw di wax di kii déedéet approche communautaire bi nga xam ne les leaders au niveau communautaire les politiques cest ay politique décentralisé boo xam ne dafay dem ba ci kër yi nga xam ne ni tey jii fépp foo taxaw dañ mën a xam ne nii nañ mën a def pour mën a jël en charge ku am feebar ku am ku am feebar xew sa kër. Mm-hmm. nii lañ ko war a def. Mm-hmm. ku te prévention dafa war a am. Mm-hmm. prévention ak aspect préventif aspect curatif ñoom ñaar ñoo war a ànd. kon mu nekk loo xam ne tey jii ñëpp ci war a dugal seen loxo. implication implication de tout le monde. ñëpp amul kenn koo xam ne da nga naan kii du sama liggéey liggéeyu ma Samba wala ma liggéeyu ma Demba la donc mu nekk loo xam ne dañ ko day benn politique am nañ koy teg ba nga xam ne nii ku nekk da nga ci dugal loxo mu nekk les collectivité locales mu nekk euh, les élus mu nekk euh, l'État mu nekk le système de santé mu nekk le personnel mu nekk les familles. donc moo xam ne ni donc ñooñu faut ñu booloo nga xam ne ni tey jii day am fépp foo xam ne ni malade ku fa am feebaru xel nekk nga fa dina la mën a permettre ñu jël la en charge parce que li ñuy fàtte très souvent mooy que ne la plupart des gens la plupart nit ñi nga xam ne ñoom feebaru xel mënuluñ seen bopp donc nekkul ñoo xam ne dañuy liggéey mën a fay seen consultation mën a jënd seen garab donc ñeneen keneen un autre membre de la fa moo koy fay consultation moom mooy moom moo koy moo koy jëndal garab donc war nañu fexe ba loolu mën a oyof donc première chose deuxième chose mën nañ fexe ba accessibilité bi daal di yokk ba nga xam ne ni fu nit mën a am feebaru xel mënees mënees na laa jox des soins de qualité pas des soins euh, uniquement pour wax ne jox nañ soins de mm-hmm. mais des soins de qualité avec des pers avec un personnel compétent bien formé mm-hmm. xam nga et donc avec des disponibilités des médicaments parce que tey le plus grand problème qu'on a c'est un problème de disponibilité de rupture de stock surtout ci wàllu pandémie bi nga xam ne ni c'est euh, devenu très difficile mais da ngay gis ñun actuellement pour nga bind ordonnance pour malaat sax da ngay bind ñu naan amul bi amul ak bële am naag nga nekk di daw gauche ak droite mag loolu ci biir Ndakaaru la waxantuma laa nag <laughs> ah, ah, ah. ci àll bi waaw c'est c'est plus compliqué que ça mm-hmm. wala yenn saa yi nga xam ne nii euh, garab yi mooy loolu da ngay nekk di di di def gymnastique pour trouver benn garab sax boo xam ne disponible na donc lool mu nekk loo xam ne nii yaakaar ne mënees na cee euh, def ay jéego yoo xam ne loolu bu anto dina tax euh, ñi am feebaru xel ñu mën leen jël en charge mais dina tax tamit ñi nga xam ne nii wér nañ ñu mën leen a dimbali pour ñu bañ a àgg ci feebaru xel. Mm-hmm. Euh, psychiatrie certainement war na nekk benn liggéey boo xamante ne moralement wala physiquement da lay da lay éprouver comment est-ce que vous arrivez à gérer cela des fois sax xëy na du ñàkk yéen subir ay agression physique yaa ma gën a bi lan nga ñu ci mën a wax ci wàllu woowu waw loolu moom moy mooy le de la médaille <laughs> waaw mooy xam ne nii euh, malheureusement moom liggéey bi ànd. Mm-hmm. parce que dama euh, koy faral wax hospitalisation en psychiatrie moom mooy foofu foo xam ne nii rek di gis malade bu dóor médecin wala infirmier. Mm-hmm. di gis sax yenn saa yi ñu gaañ la waaw euh, parce que quand euh, am na des des unités yoo xam ne unités yu métti la parce que malade dafay toll foo xam ne tàggu na sangam tàggu sangam boo xam ne nii mës na na laa wala sax yenn saa ñu faat ci ay nit. Mm. donc am na ci donc mu nekk loo xam ne tamit euh, pour man jàpp ne bi ngay euh, bi ngay jël liggéey bi. Mm. xamoon nga ko donc loolu da ci am. wante euh, bu weesoo méttit boobu nga xam ne nii physique la mm. dafa am beneen comme ni nga ko waxee beneen méttit émotionnel boo xam ne dangay ngay toog nit ñi ñëw chaque fois. di la wax yoo xam ne nii yu metti la yoo mhm. xam ne dafay da yëngal soxol parce que nit nit dong la mën a doon ba pare da ngay am ay identification da ngay am ay projection da ngay am ay contre transfert yenn saa yi am ay transfert loo xam ne émotionnellement daf lay impliqué si yow ak nit ki nga nekk parce que tamit yow si kaatib nit nga ki nga jàkkaarloo di ko faj nit la mhm. donc il faut ngeen am émotionnellement loo xam dafay daw seen diggante mu nekk ci wàllu yërmande mu nekk ci wàllu yenn saay euh, mu fàttali la kenn ku la jege wala yenn saay mu nekk loo xam ne ni histoire boo xam ne lay da lay da lay metti mm-hmm. donc moo xam dafa lay émotionnellement dafa lay mais loolu tamit mu nekk loo xam dañ ci sant yàlla parce que dañ koy jàng tamit naka la ñuy def pour maîtriser ko pour mën a jàll loolu ba nga xam ne di nga a travailler avec ses avec mm-hmm. ba pare am na ce qu'on appelle les supervisions mm-hmm. loo xam ne nii peut-être que yow di am ñoo xam ne nii ñoo gën a kawe ci liggéey bi wala toog ñu mën a gën a féete mag ñooñu dinañ ñëw di la xool yenn saa yi mm-hmm. wala tamit ngay dem ci ñoom nga xam ne boo amee problème nga am ñoom nga waxtaan ak ñoom ñu daal lay dimbali. Mm-hmm. loolu tamit dafa am réseau tamit de collaboration boo xam ne yenn saa yi bu gisee bu nekkee gis nga ne malade bi yaag malade bi émotionnellement dafa dafa xaw a metti mm-hmm. mu nekk loo xam ne ni metti parce que émotion da nga am compassion ci malade bi wala danga am yenn saay saay ay dégu ci malade bi da koy daal di jox sa beneen collègue mu daal di continuer sio bi donc mm-hmm. loolu yëpp am ay technique yoo xam ne dañ la koy ci ci wàllu ci at yi ngay jàng mm-hmm. métier bi dañ la koy wax ba pare defal nag supervision boo xam ne dina permettre yow nga mën a euh, ràññee yooyu ba nga xam ne du la gaañ. Euh, professeur Aboussi nga nekk psychiatre xam naa yàgg nga exercer ci sa parcours ndax am nga loo xamante ne am na patient wala loo xamante ne vraiment tu te dis lii peut-être pareeguma jeexaluguma métier bi mais vraiment am na loo xamante ne marqué na la ba saa yoo toogee peut-être dafay revenir en boucle ci sa tête. waaw am na am na yu am na am na yu bëri yoo xam ne ni daf lay daf lay daf lay marqué mu doon ay succès wala yenn saa mu doon ay échec donc euh, loolu moom mënu cee ñàkk parce que ci ci domaine médecine la mm-hmm. waaw mais euh, ñoo ci sant yàlla waaw donc euh, mais li gën a li gën a li gën a marqué pour man mm-hmm. mooy yi nga xam ne mën nga ko def ci nit ñi pour dimbali leen ba nga xam ne nii peut-être que di nga gis nit koo xam ne nii nekkoon na ci benn situation boo xam ne peut-être que boo ko bàyyi woon adunaam euh, yàqu xam mhm. nga daal di koy dimbali fexe ba mu reprendre at euh, kii wam bon benn benn bu ma gën a boo xam ne ci mhm. cas yu ma gën a marqué la xam naa ne peut être moom euh, bu dégloo émission bi peut être dina xàmmee boppam mais mhm. euh, amoon na ci benn benn waaye boo xam ne presque bi ñuy bi ñëw ci bi ñu indi ci ñun Euh, demoon na daal ba euh, def naan yaakaar amatu ci woon. Mhm. ah te boobu fekk euh, demoon na ba am poste de responsabilité nekk directeur. xam nga nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne nii fexoon na daal ba liggéeyam commencé woon na yàqu. waaw donc heureusement yàlla defal ñu ci. Euh, sutura bi nga xam ne bi mu ñëwee taxawu beeg lépp fexe na léegi ba delluwaat na ci liggéeyam nekkaat ci poste directeur am mm-hmm. donc mu nekk loo xam ne nañ ci sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. waaw parce que comme ni ñu ko waxee yàlla donc moo mën wéral nit moom dañuy faj rek mm-hmm. donc di ko ci di di ci sant yàlla bon tamit di ko féliciter moom di féliciter famille parce que euh, vraiment famille famille bi impliqué na impliqué wu na derrière parce que buñ ko bàyyi woon tamit mënoon naa mënoon naa demee neneen mais mm-hmm. vraiment la famille si impliqué métti woon na lool famille impliqué wu ba vraiment euh, mu ñëwaat ci ci anam yi nga xam ne daal ñoo ci sant yàlla. Mm-hmm. Euh, xam naa dañuy jeexalee ci li nga xamante ne moom moo di psychiatrie bu ñu waxee psychiatrie fii ci Sénégal euh, boo ñu doon defal benn xayma par rapport ak seen lim ndax vous arrivez à couvrir territoire national bi lan nga ñu ci ci ci mën a wax. waaw euh, loolu nag moom lim bi lu néew la. Hmm. lu néew la li ci gën a bëri Ndakaar nekk parce que li ci gën a bëri ay jàngalekat comme sama genre nga xam ne day jàngalekat lañ. Hmm. Euh, ñooñu ñoo fi nekk di jàngale di former. Hmm. Ah, waaw mais nag euh, li ñuy former li ci gën a bëri te loolu nag moo ci gën a parce que li ci gën a bëri bitim réew la ñuy jógee. parce que wa da gis ñoo xam ne nii am na ñoo xam ne Cameroun lañ jógee am na ñoo lañ jógee am na ñoo xam ne. ci dëkk naar li ñu jógee Maroc donc Côte d'Ivoire tamit dañuy former euh, xam nga. Mhm. Tchad dañuy former xam nga ñooñu ñëpp day ñëw fi ñu leen former mais Sénégalais yi ñuy former moom des naa bëri parce que ba tey dama jàpp ne. Euh, Eh, nit ñi même yenn saay sax boo nee may def psychiatrie dañ naan la yow mënoon def cardiologie wala nga def gynécologie wala nga def pédiatrie naan ngay dem def psychiatrie voilà donc nit ñi sax yenn saay peut-être que seen suñu waajur yi ñoom ñoo ñuy dissuader pour nga def parce que dañ naan la ngay faj dof fekk na peut-être que duñ xamuñu ñàkk xam bi la toujours mm-hmm. donc euh, moo tax ne ba tey lim bi bëriwul parce que boo xoolee def naa ne buñ koy lim psychiatrie nekk Sénégal motuñu motuñu vingt cinq premièrement deuxièmement psychologue yi tamit tuuti nañ lim lim yi nekk psychologue bëriwuñ ba nga xam ne nii daal boo jëlee lépp en tout et pour tout daal lim bi lu néew a néew a néew la waaw. Euh, en plus de ça étranger yi ñoo ci euh, pare non ci vingt cinq yooyu moom c'est des sénégalais. d'accord waaw la parce que boo xoolee comme ñu naan léegi de léegi ci at yu mujj yi rek lañ commencé am ay psychiatre yoo xam ne nag ñoo ñoo ngi leen di former ñuy génn. Mm-hmm. parce que tamit ñu bëri dañ doon dem xam nga tamit bu nekkee. Euh, boo formé nit ki ba pare mu génn dem bitim réew dem foofu fay bi ak condition de travail yi mm-hmm. day tax de du ñëwaat waaw voilà donc euh, loolu tamit mënuñu leen cee ŋàññi daal <laughs> parce que c'est des choix de vie mais euh, ñu bëri dañ leen former ñu dem bitim réew mm-hmm. ñu bise ñu bisaatuñu bon loolu tamit ñu naan bon seen choix de vie la mm-hmm. mais en tout cas léegi de plus en plus xale yi ñoo góorgóorlu di toog fii buñ leen former pare ñu toog fii mais tamit comme li ma wax euh, li may faral di wax ñii toog fi tamit il faut ñu am luñ leen euh, luñ leen motiver waaw lu leen téye ñu gën a mën a toog fi parce dañuy déglu tamit ñi nekk seen morom yi nekk bitim réew mm-hmm. nekk foofu dañuy am retour donc euh, buñ leen motiver ñoom am na ci ñu bëri ñoo xam ne nangu nañu génn dem Euh, nekk dem ci région yi dans des condition yoo xam ne nii ay conditions yu metti la en mhm. en psychiatrie vraiment euh, conditions yi ñu liggéey ci ci ci àll bi yenn conditions yu metti parce que yenn saa dox di wër gox-goxaat yi mm. da nga ciy gis euh, vraiment des condition conditions d'exercice qui sont très difficiles donc je mm. pense que loolu tamit war nañu góorgóorlu ci améliorer seen condition de travail mm-hmm. sur le plan ñoom ressources humaines mm-hmm. parce que nit ñi koy def eh, ñi centre yi bëriwul centre yi bëriwul nit ñi nekk bëriwul cër bañ leen war a jox joxuñu leen ko parce que dañ koy jàppee ne peut ay euh, euh, ay ay nit ñu ay fay nit ñu wérul lañ donc je pense que loolu yëpp tamit il faut ñu xoolaat ko. Mm-hmm. Euh, bu weesoo lim bi néew bi nga wax léegi eh, ban jafe-jafe rek nga bëggoon souligner laata ñuy tëj. waaw encore une fois de plus di di di di di. di ñaax di ñaaxaat man li may wax population bi. Mm-hmm. parce que du ma ne état du ma ne politique du ma ne population bi laay gën a ñaax naan leen euh, nit ki dafa war a am njëriñ ci société ak ku mënta doon saa à dire warta nekk un assisté donc bu ñu gisee nit koo xam ne moom commencé am ay feebaru xel au lieu di ko teg rek muy lekk di naan ñu bàyyi ko foofu nañ ko indi ñu faj ko pour mu mën réinsérer delloo ko société pour mën a am njëriñ mu amul amoon njëriñ société bi. Mm-hmm. man damaa dàq concept que ne malade mental dafa a nekk charge. Mm-hmm. malade mental warta nekk charge. Mm-hmm. am feebaru xel warta tax nekk charge parce que am feebaru xel warulaa tere liggéey warulaa tere am njëriñ sa société. Euh, docteur euh, traitement thérapeutique euh, mën na mën na jël ban durée. waaw loolu ça feebar am na feebar yoo xam ne traitement bi dina gàtt am na yoo xam ne nii. dina gudd bu gàttee dañ naan si mois bu guddee mën naa dem ba deux ans am na nag ay traitement yoo xam ne traitement à la waaw yoo xam ne nii moom bu feebar yoo xam ne buñ ko euh, xasee ba gis ci yow traitement bi dafay nekk traitement à vie peut-être nag loolu moo gën a metti mm-hmm. parce que après dañ naan traitement bi dafa yàgg traitement bi dafa yàgg wante may fàttali nit ñi rek benn affaire mooy li gën a am solo du garab yi ngay jël mais état bi nga am parce que bu nekke waaw parce que bu nekkee na yow laata ngay jël garab yi amoon jàmm sa yaram nga jël garab yi am jàmm sa yaram pourquoi li nga bëgg a bàyyi garab yi bu nekk garab yi la jox jàmm. Mm-hmm. nit ñaa ngi am nit ñaa ngi am eh, jabet di faju di faju toute leur vie mm-hmm. nit ñaa eh, tension di faju dañuy faju seen àdduna yëpp mm-hmm. mais pourquoi pas ñi am ah, feebaru xel tamit mënuñoo faju seen àdduna yëpp mais loolu nag encore une fois de plus il faut garab disponible euh, non seulement il faut garab yi disponible waaye tamit euh, il faut tamit ki nga xamante ne moom moo am feebar bi mu nangu ne moom am na am na faj bu wax ci moom aussi déet ki ki am feebaru ki am feebaru xel moom mënuñu kaa jàpp mënuñu kaa toppee dara. d'accord waaw kooku moom incapable lu ci gën a bëri. incapable majeur mais environnement bi nag. waaw environnement bi yenn saa yi nag famille yi ñooy bañ feebar bi ba nga xam ne duñ ko yóbbu fuñ ko war a faje waaw mhm. donc ñooñu nag ñoo war a nangu feebar bi mais bu xamee ne am na faj. xam ne am na fu ko mën a fajee te xam ne faj mën naa jox résultat bi maanaa danañ ko nangu. Mhm. d' euh, mu mel ni liñ ñu cëraloon ci waxtu wi jeex na professeur a Sy sa kàddu gu mujj. waaw di di dolli leen sant di rafetlu liggéey bi ngeen liggéey euh, liggéey bu rafet la parce que comme ni ma ko waxee ñun techniciens yi la plupart du temps suñu suñu bureau yi la ñuy nekk rek defe ne euh, li waaw ci ci ci kii wala benn ñaar ñett juróomi malade fukki malaat boo gisee. Uh-huh. jeex na wala yenn saa yi xam naa am na aspect yoo xam ne nii mooy gën a kii mooy duñ ko aborder mm-hmm. mais yéen peut-être que euh, ak seen liggéey dina permettre ngeen wasaare mm-hmm. li ñuy xalaat wasaare suñu wax ba nga xam ne nii ñi nga xam ne ni fu nga xam ne suñu tànk àggu fa mhm. wala suñu loxo àggu fa peut-être suñu kàddu mën nañ fa àgg mhm. ba pare pour dimbaliñ ci liggéey bi def nii pour askan wi mhm. euh, kàddu rafet na lool moo fàttali ne yéen ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag mu amoon mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di professeur Abou Sy et professeur Abou Sy nekk fii psychiatre fii ci hôpital bu Fann mu mel ni li mu wax nag am na solo lool ndax euh, santé mentale dafay ñi nga xamante ne ñoom ñoo di famille bi maanaam socle bi lépp lépp lépp dafay revenir ci environnement nit ki wala entourage am il faut que aussi yenn saa yi ñuy bàyyi dara di def dara di am seetlu aussi ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy dëkkal bu ñu commencé manifester yenn symptômes yi ñu ba ñu bañ ko tëkkali ak li nga xamante ne moom moo di yar ak wala xale bi dafa réew ba des fois bu ñu leen di yóbbu au niveau des structures hospitalières euh, traitement bi war dafay jël temps wala yi tamit sax duñ ko mën def comme il se parce que dañu laissé beaucoup de séquelles yoo xamante ne dafa nekkoon à la traîne mu mel ni kàddu yi fi yëkkati am na solo ñu jàpp ne rek képp ku nekk ci askan wi di nga ci jëlee leçon bu am solo lool fàttali ne SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi juróom ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen invité ci beneen émission